mubaarakol ibtidaa'i noo ngi ñaan barkeelab tàmbali gi may noonal intihaa'i noo ngi ñaanit barkeelab egg gi wala hoo ñeel na ko aji wax ja wax baytun weneen bayit aaxaru weneen bala moo wax bayit wi nag da koy ñaanal mu ne ziida yal na yàlla dolli ko aydan ba tey faydan baywaa ni may amiin mu ne bayit woowu nag mi ngi ko wax fi azal maxnaa ci lay maanaa yan simu mu def ko ay woy nag maanaa xawli sayxi di maanaay waxi sëriñam radiyallahu taala anhu yal ko yàlla may aji ko we gërëm wa huwa bayit yooyu mooy lii dawlatul baatili nguur ak neen saaxa waxtu dong lay am wa dawlatul aqi nguur dëgg nag ilaa saaha day dem ba saa su taxaw sëriñ Tuubaa nee na alxaqu dëgg saabitun aji sax la wa amal batiilu su fekkee ne ak neen la nag wa ina ala bu koy woon ba ñépp di ko seen fa saayaqun day mujj naax saay wa saafilu te day mujj suufe bismillahi maa ngi tàmbalee ci yàlla arrahmaani kay aji yërëm ak a ci àdduna ña koy jaamu di ko sant di ko gërëm ak ña dul jaamu duñu ko sant duñu ko gërëm arrahimi dana yërëm ca àjjana ña ko doon jaamu doon ko sant doon ko gërëm wasallallahu yal na yàlla dolli teraanga jàmm taala yàlla mi aji kowe ala ca sunu sang ba muhammadin wa alihi ta àggale ko ca ñoñam wa sahbi aki sahabaam wa salama ta mu dolli leen a musal tasliman ak dolli musal xaala wax ibnu sayxihi doomi sëriñam ja allazi ka nga xam ne la yahmadu du sant fi nafsihi ci boppam siwa ismihi ludul turam wi nga xam ne muhammadu mooy turu muhammad kooku wax nag mooy seyxul xadim xadim rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moom de nee na doomi sëriñam la Maam Mor Anta Sali mooy way juram waaye da koo jàppe woon it ab sëriñ mu ne nag du bëgg ci jëmmam ji du sant ci daraam lu mu def li koy tax sant daal mooy tur wi nga xam ne moom la tudd muy Muhammad waaye leneen lu dul loolu ci mbiri boppam ay xasaayitam mbindam xam-xamam jàngaleem liggéeyal diine gi mu liggéeyal diine nee na lépp xeeb na ko waaye tur wi nga xam ne mooy tur Muhammad bi mu am daal la xeebut ci mbiram cëy ak a baax baax baaxam yépp xeeb na ko waaye turu Muhammad wi daal la xeebut nee na ci loolu dong la sant daal mel na ni mu bëgg leneen la ca des lépp jàpp na ne war naa gën a baax na mu mel la muy baax baax tey sëriñ Tuubaa nee na alhamdu ak cant lillahi ñeel na yàlla si yàlla mi nga xam ne xat satara mooy aji sutural sutural ja maa yi bi samay ayib wakaana lii te yàlla moomu it nekkal na ma wan nasara te it dimbali na ma subhaanahu tudd naa sellam nga rabban moom mu di buur kariman buy aji tedd te sunu boroom moomu jaada tabe na ba may ma jaada lii tabe na ba may ma bi ci loo xam ne xat xaada may yooya damay ommat li sukrihi jëme ma ci may sant yàlla wa huwa ay allazi mooy ka nga xam ne jaxala def na usnal adabi rafet ay teggin yux fii muy làq jaxalatan ak réer wa xubxa nasabi ak mbonak askan ñene képp ko ami teggin doon lente ne aji réer la réer ga du feeñ doon lente ne daa bokk ci askan wu bon loola du feeñ ndax teggin yay tax kenn du mën xuloog moom ba jeqi loola te yàlla moomu waxasa jagleel na ahlal ilmi niti xam-xam ya wal aadaabi ak worom teggin ya bil fawzi ci ñuy boroom ak texe yàlla moo leen ko may bi sawaabi ci ñuy boroom ak jub wa sawaabi te ñuy borom ak yool sawaabi gee ñu binde saat nag ak jub lay firi sawaa bi gée ñu binde ñetti tomb cuun waaw liif gu aj baajoor googu day tekki ab yool ñoo niroo nuñ leen dir liire boo ko diggu boo diggee même ton ngay dégg sawaa bi sawaa bi bokkuñu nag lu ñuy firi bokkuñu nu it nuñ leen binde